ci Tab Tab xibaar yi lu ci gën a fës bokk na ci lu tukkee ci mbas mi fanweeri doomi aadama ak ñett ñoo dolleeku ci lim gu ko fi eh, jot a am fanweer ak juróom-ñeent dolleeku ci lim gu ñu jot a fa jàmmul eh, benn bu dolleekuwaat si lim gu si jot ñàkk seen bakkan hôtel La Pierre de Lys bu nekk Popenguine la ñu dal di braqué ci week-end bi ci ay booru 3 heures du matin la fa daanaka eh, lu toll ko fukki samba booy wàcc ak seen ay ngànnaay la fa tukkee yëpp danañ leen ko gën a yaatalal ca sal yi danañu fa des wax si génn àdduna benn benn irlandais jural na njàkkare sax askan ba yeewoo ca ñax-ñaxal nga moo xewee waa ji nag dañu ko fekk rek ñu takk loxo ya ak tànk ya mu ñàkk bakkanam ca biir néegam général Jean Baptiste Tine mu waroon a jël retraite fii ak ñetti weer njiitu réew mi Macky Sall daal dinay tekki ndombal tànkam bu dee sax ñenn ñi indi nañ ay raison yu bëri yaakaar ni moom moo tax njiitu réew mi jële ko ca chaise ba taskatu xabaar bi di Pape Alé Niang am na la mu ca xam li nga xamante ne ni dina leen ko jottali ci bu ñuy yaatal yi lee jootaayu xibaar Abdoulaye Mbaye Pekh dafa defoon accident ci tournée économique njiitu réew mi Macky Sall gannaaw ba ko Macky mayee ab 4-4 euh, kii di Abdoulaye Mbaye daal dinay ñëwaat ci euh, lu xew bésub accident boobee mbir ya na mu demee waaye euh, ci anam ba ko réew mi Macky Sall taxawa boobulee bés bakkan daal dinay bu njiitu réew mi Macky Sall di amal waaye bi yoon ca Ranérou rek la amee ci ab accident bu fa am ab garde rapproché bu ñu jël nervi ci tournée économique njiitu réew mi Macky Sall ca diwaanu Saint-Louis daal dinay am ay mbir yamu xamle euh, ca seen euh, tukki ba boobee ñu amal euh, ca diwaanu Saint-Louis nga xamante ne nii rek daal dina si def ay révélation ci tournée économique am bi Macky Sall daal dinay jaar ca Linguère donte sax boolewu ko woon ci programme am la tax mu jaar fa ak ba mu demee moo ko maire bu Linguère Aly Ngouille Ndiaye yan kàddu la ñu fa jot a weccante lépp dinañ leen ko gën a yaatalal ci les jotaayu xibaar xibaar bu neex daal dinay tàbbi ci Papis Xarañ Lo yor cumbukaayu Modou Lo Papis Xarañ nag daal dinay jël soxna kan la jël soxna ñan ñoo teewee woon boobu li xew lépp dinañ leen ko xamal ak kaddu ya fa Modou Lo yëkkati ci Lalla di actrice ci série bi di maîtresse d'un homme marié gannaaw moom it ba mu déggaate alxayri xibaar bu nakkari tàbbi na ci ki nga xamante ne ni moo di jaw këccëb ak soxnaam gannaaw ba ñu rek takkante lu ëpp juróomi at di sëy ñoom ñaar ñu ñee tàggoo rek moo daal di am seen diggante lépp dinañ leen ko gën a yaatalali te laata ñu si uh, la uh, xibaaru tàggat yaram at ju si wàllum Sadio Mané ak hôpitalam ba mu doon inauguré ca Bambali laata ñu koy tëjee ak mbirum làmb ak uh, lu xew démb ba ri fii di dugg ca arène nationale mbokk yi loolu mooy tënk yi ngeen taaxirlu rek nees tuut ganna bàkk bi ñu daal jàndaa àndaat ak yéen ci lu ñu yàlla yaatal wi aywa bàkk ba jib na maa ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñu safoo Dakar ba di si teewlu bés bu yàlla sàkk seeni ay xibaar ni ñu ko tàmm di defee rek mbas mi la ñu koy daal di dooree si suñu réew mi di Sénégal tey junney doomi aadama ak ñeenti téeméer ñaar fukk juróom-ñeent la ñu daal di testé fanweer ak ñetti doomi aadama ñoo ca amee coronavirus bi fukk ak juróom-ñeent ya ca ñoom dañ leen wàll fukk ak ñeent ya di ay cas communautaire bu weesoo loolu fanweeri doomi aadama ak juróom-ñeent faj nañ leen ba ñu wër dolleeku ci lim gu ñu jot a faj juróom-ñaar te ñu amee tawat wa sonn nañu ba ñu nga sauvetage te tey nag amul ku dolleeku ci lim gu si jot a ñàkk seen bakkan ba ñu amee bu njëkk ci coronavirus bi ba jamono ji may wax ak yéen ñeent fukki junney doomi aadama ak ñaar ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñoo ko fi jot a amee si ñoom ñoo ñee ñeent fukki junney doomi aadama ak juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak ñeent faj nañ leen ba ñu wër junney doomi aadama ak téeméer ak juróom fukk ak juróom si seen bakkan fi mu ne nii ñetti téeméeri doomi aadama ak ñeent la ñuy traité ci bile feebar di coronavirus bi fii ci Sénégal. hôtel la Pierre de Lys bu nekk ca Popenguine la ñu braqué ci week bi ci ay booru 3 heures du matin la fa daanaka lu tollook fukki samba boy yu yor ay ngandaay comme lu ci mel ni ay jaaseeg li ni mel dal di wàccee ñoom nag ñu yor kaaraange gi te nekkoon ca plage ba la ñu njëkk a maîtriser laata ñuy accéder ci réceptif ba ay membre personnel bi ak ay vigile tamit ñu maîtriser leen dal di visiter néeg ya di attaquer clients yi am sax ñañu ci door door yu métti lool effet personnel lépp rek la ñu buub daal di yóbbu laata ñuy dawoo ak benn si ay auto client ya gendarmerie bu yor enquête bi mi ngi fekk ci auto ba ñu sàcc ñu abandonné ko ci quelques kilomètres Saly bu weesoo ña si jëlee ay gaañu gaañu ak dégâts matériels yi koppar bu bari bu ñu xaymaagul si ñaata la war a toll it daal dinañ koy yóbbook ñoom Samba bu yi ca Saly lay des ak ba tey génnub àdduna benn irlandais jural na njàkkare askan ba yeewoo ca ñax bakkanam ci fañu ko takk ci biir néegam amul benn objet bu am valeur ba nga xamante ni yóbbu nañu ko waaye nag kako wa ñakko ña ko yóbbu nañu téléphone am vigilu kër ga daal dinañu koy teg loxo ngir teewlu ko ci lu ñeel enquête bi sortissant irlandais boobee nag ay atam toll si juróom benn fukk si néegam ca sali ñax-ñaxal lañu ko fekk mu ñàkk bakkanam ñu takk loxom yeeg tànk ya ambassade du bu nekk Nigéria géré tamit zone ouest africaine si ak ministre euh, sénégalaise des affaires étrangères di maître Aïssata Tall Sall ngir am ay xibaar ci wàllum boobule meurtre. ñu jubali ca Italie homicide volontaire violence sexuelle aggravée ak wàllum jaay drogue ay mineur tax na ba cour d'assises bu Rome condamné benn nigérian benn ghanéen ak benn sénégalais ngir faatu benn xale bu jigéen bu ayatam toll ci fukk ak juróom-benn diw wuyoo si turub Désiré Mariottini homicide bi mi ngi am fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre atum 2018 ca Rome ci ab immeuble ba nga xamante ne ni kenn dëkku fa nekkee ca quartier San Lorenzo di bërëb boo xam ne dañu fay trafiqué waaye itam di fa jëfandikoowee drogue nigérian bi Alino Chima ñaar fukki atub kaso ak juróom-ñaar la ñu gàcc ci ndoddam sénégalais bi ma ma Mamadou Gara ñu naan ko Paco giiru dundu lañu ñu gàcc ci ndoddam moom ak ghanéen bi du Youssef Salia beneen sénégalais bu ñuy wax Brian Mente daa dinay rëcc ca kaso ga ñeenti trafiquant drogue yooyu nag dañu leen tuumal ni dañoo nekk di tëddee benn xale bu jigéen ku pare rek dal di jox sa morom gannaaw ne benn mélange drogue bu sabab sax génn bu àddunaam désiré mu ñu ne nag ku naïf la te bëri problème daa ñëwoon si capital boobee ngir rek sori famille am man di jëfandikoo drogue moom nag xëm na sax lu yàgg ci loxo trafiquant yi laata muy rek euh, noppalu ci ba ñuy amal procès bi la ay seede xamle sax ni Youssef daa tëkk woon ña bëggoon a woo secours yi ne rek euh, rey leen moo ko gënal dem ca kaso ga expert médicologiste yi nee nañu gaañu gaañu ya ñu liggéeyam bi doon na luy firndeel ni euh, xale bi dafa vierge laata ñu koy def li ni mel. général Jean-Baptiste Tine mu waroon jël retraite fii ak ñetti weer daal di nañuy tekki ndombal tànkam ci ay fonction au commandant de la gendarmerie nationale njiitu réew mi Macky Sall nag moo ko fa jëlee daal di fay teg général Moussa Fall bu dee nag ñenn ci suñu naataango yi lim nañu lu bëri lu war a tax njiitu réew mi tekki ndombal tànkum général Jean-Baptiste Tine Pape Alé am am bu ñu sukkandikoo ci taskatu xabaar bi général Jean Baptiste Tine dafa joxoon ordre maanaam ndigal gendarme yi ngir ñu bañ a rek ngànnaayoo ay balles réelles wa ilaa di koy jëfandikoo ci ñaxtu ya fi amoon weeru mars Pape Alé nag nee na li ni mel bokk na si lu tax njiiti réew mi tekki ndombal tànkam mu toog bu yàggul dara gannaaw ba mu wutoo général de corps d'armée bi di Jean Baptiste Tine général de division bi di musa Fall au commandant de la gendarmerie nationale daa kaaraange gi ah, ci ay ndigalam daal dinañuy amal sax ab opération de sécurisation bu yaatu samedi bi ñu génn ci ngoon ah, ngir xeex wàllum faat bakkan yi ak délinquance bi ci gox yu si mel ni Kër Massar ah, Mbaaw ak Tiwaawoon Pël visé forêt classée bu Mbaaw lu wër rond-point ay station yu Kër Massar unité 11 bu Kër Massar décharge bu Mbëbës quartier Daaru Salaam bu Tiwaawoon Pël ak bar clandestin yu ñu signalé si secteur ba leneen lu doy waar moo am ca quartier Daaru Xudo Xuddoos bu Touba di xeexoo ba fa am si diggante ay taalibe wu benn dayra ñetti doomu aadama nag jëlee nañu si ay gaañu gaañu yu graaw lool bu ñu sukkandikoo ci source a bu biral xibaar wi am na sax ku si def lu métti jëwriñ ba ba noppi rek damm tànkub kenn ci membre dayra ba laata nag mbooloo mi di koy sëkkatoo policier yu nekk ca commissariat spécial bu Touba ñoo fa mujjee wàcc si daal di defeere juróom-ñaar si ñoom bokk ca jëwriñ ba ba tey ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz Kébémer dafa defoon accident ci tournée économique njiitu réew mi Macky Sall euh, communicateur traditionnel bi nag daal dinay dikkaat ci choc boobee jaaxaloon sénégalais yu bëri waaye itam na ko njiitu réew mi soutenir Pierre nag nee na ñoom ñëpp tiitoon ndaxte mbir mi dafa gaaw lool si noonu mu ne ba ñeenti pneu oto ya daal féetewee kaw la retrouvé waat ay esprit wam te yëggul woon benn gaañu gaañu waaye ba mu génnee ci oto ba la gis jëwam bi di nàcc ba loolu weesoo Pierre ne nag yàlla moo leen wëllu ndaxte oto ba mënoon na tàkk jëppeet te yaakaarul woon sax ni dina génn ci accident bi Abdoulaye Mbaye Pekh nee na it njiitu réew mi woon na ko ñaari yoon ngir réconforter ko mu xamal ko ne am na intention gu wëyeen di tournée bi ak moom ndaxte yëgoon na fee mbay peex nee na wax na Macky Sall tamit ne ko géwél amul droit deltu gannaaw ki ne ko deltuwoo gannaaw yàlla ko bëggee ni ni mel ba noppi nag ne mu wëññeeku ñibbi ci wetu njabootam bu tàmbalee jaaxle ma Macky gannaaw loolu dafa yëg ki téléphone am ngir woo ay euh, soxnaam euh, dalal seeni xel te mënoon na ko see bañ a fekk te ak famille am yëpp la Macky Sall waxal daanaka ba noppi ci alxemes gi mu yëkkati 4-4 bu bees tàkk daal di ko koy may loolee yëpp mbay peex si boppam moo koo xamle ca journal bi di observateur bakkan daal dinay rotati ci tournée njiitu réew mi Macky Sall waaye bile yoon bakkan daal di nuy rotati ci tournée njiitu réew mi Macky Sall waaye bi la yoon ca Ranérou la xewee accident de circulation boobee nag moo perturbé sax yegg si njiitu réew mi yi sàll bi ngir inauguration nga benn daara moderne bu Ranérou benn xale bu góor bu ñuy wax Oumar si ay atam toll si ñaar fukk moo daanoo ci benn kaar laata beneen kaar bu doon daw xëll di koy tël jaar si kawam mu daal di cay ñàkkee sax bakkanam victime bi mi ngi sokkee ko village bu ñuy wax Fass Ferlo nekk ci 5 kilomètres si noonu la ñu def constat d'usage bi laata ñu yóbbu néewam ca kër docteur bu Ourossogui ab garde rapproché ba ñu jël nervi ci tournée économique njiitu réew mi Macky Sall ca Saint-Louis daal dinay am ay mbir ya mu xamle comme ni ma leen ko diggee woon moom nag nee na ba mu gisee situation bi ca Saint-Louis en tant que garde rapproché professionnel la daal di beddi ay ñoñam wëññeeku si si Dakar ci noonu la sensibiliser ay naataangoom ne leen nag nañuy moytandeku politiciens yi di leen di jëfandikoo di leen di defloo ay ñaawteef Macky Sall région yu Saint-Louis ak Matam foofee nag ca Linguère mbooloo mu takk lool ñoo ko fa dal di teeru ay responsable politique jiite ko bokk ci ancien ministre de l'intérieur bii di Aly Ngouille Ndiaye mu nekk tamit maire bu Linguère ba mu fa yeggee nag ay booru juróomi waxtu ci ngoon Macky daa kontaan lool si noonu ne ñu ko teeroo laata Aly Ngouille Ndiaye di koy xamal ni monsieur le président maa ngi lay xamal ni askanu Linguère yëpp la gëm te mobilisation bi yëpp lu ko wund mooy wax la ni rek jaajëf si la nga ñu honoré ci bile euh, ba mu noppee njiitu réew mi xamal ko ni étape boobee bokkul woon sax ci tournéem waaye nag euh, ba ko Aly Ngouille Ndiaye waxee ngir mu jaar fa wax ak askan ba ak responsable politique ya daf ko ko la laata mu koy naan sax lu mu gis foofee réconforté na ko convaincre ko ni département wam bi mu ngi maintenir cap bi ba tey euh, te tamit lu mu gis foofee ca Linguère wane na nañu àndeek mouvance présidentielle bi snapper bii di Boucher Ketchup samedi bi ñu génn la doon ngénte doomam dal di def xew bu rëy lool ca Kër Mbay Fall ay célébrité yu bëri ñoo ko wuyu si woon nag ngir bokk ak moom bésu bànneex ba Sidy Diop jot na faa lu neex Bass Thioune ak i ñeneen ak i ñeneen soxna Ketchup bi tamit def ay sañse yu taaru lool borom këram sax yëkkati fa ay kàddu ngërëm jëmale ci soxnaam soosee dal di sax waat ne moom moomee du takk beneen soxna ci àddunaam ci micro taskatu xabaar ya fa nekkoon Kara Mbodj ak tamit Birane Ndour ñoo nga woon ca ngénte la beneen ngénte di bile yoon bu comédien bi di Serigne Kañ moom tamit dafa doon tudd doomam bés yi ñu génn Ndeye njaay mi nga xamante ne ni ràññee nañu ko ci wàllum théâtre attiré nañu bëri ak sañseem bu yànj ba mu ca def comme nu ngeen koy gisee noonu ci écran bi su ma noppee ci ngénte yi damay àddu ci mariage yi Papis Xarañ loo daal dinay jël soxna kookee ngeen di gis ci écran bi nag mooy soxna soxnaam seen photo ya tax na ñu gën a gis mbëggeel bu yi dayoo bu am seen diggante moom Papis Xarañ Lo ak ma ay borom daraja nag yu bëri demoon nañu teewee ba suba ba Papis ba bokk na ca euh, première dame Marième fay Sall la koy firndeel bokk na ci ci photo yi nga xamante ne jël nañu ko fa ca ba xew bi mariage euh, roi des arènes Modou Xarañ Lo tamit mi ngi woon ca xew ba kookee yor wàllum cummukaayam xew bi nag ñoo ngi ko amal en toute discrétion ca cité mixta ci noonu ne la Modou Lo yëkkatee ay kàddub seede jëmale ci genn wàllam boobee di Papis Xarañ loo doomu Parcelles Assainies bi nag nee na li sant yàlla la mu leen di ñaanal yàlla barkeel sëy bi te may leen njaboot bu barkeel yàlla musal leen it ci seytaane te lii mooy mbégte góor bu nekk Modou Lo nee na Papis euh, mu mu soxna du lamb moo leen boole rakk la ci moom comme ku mu bokkal ndey ak baay ba tax na léppam yitteem la te xam na papis fu mu ko teg ndax loole du cër bu ndaw laata muy yokk ci ay kàddoom ni euh, papis moom du ko présenté benn sénégalais ndaxte ku nekk rek xam na taxawaayam ci moom moo Modou Xarañ loo ba tax na daal bësam bakkanam la siy teg saa su ne te ku nekk mën na seede li ni mel ba tax na daal day ñaan rek yàlla dakkal leen seytaane ba fu ñu bëgg ànd bi yegg yàlla kawel ko fa doom sax xibaaru ba alxayri bu neex bi tàbbi ci keneen di bile yoon Binta wa ila Lalla di actrice ci série bi di maîtresse d'un homme euh, moom nag actrice bi daal dinay euh, génnaat ci rangu célibataire yi euh, moom moomee day wujje ji ndaxte ab entrepreneur sénégalais di homme d'affaires waaye itam ancien émigré ca États-Unis moo ko daal di takk ñaareel mu tàggoo woon am ñaari doom Lalla PM Ndiaye amaat na borom kër doon fi mu ne nii madame Dieng couple bi nag ñoom ñoo nas yem moo tax sax ñu bëri yëguñu ko ca mbaaw la ñu takkee sëy bi ci teewaayu ay jegeñaale couple bi équipe Dakar Buzz yëpp ñoo ngi leen di souhaiter heureux ménage nu xibaaru ba alxayri neexee te daggan noonu la xibaaru ba tàggoo nakare waaye itam te daggan eh, ki nga xamante ne moo di jaw keccëp daal dinay tàggoo ak soxnaam sa atala gannaaw bañ defee juróom-ñaari weer ba ñu marié ak léegi eh, xibaar wi nag lu koy dëggal bokk na ci poste bu kii di atala def eh, la retour à mon équipe de célibataire maanaam daal delluwaat na ci euh, rangu célibataire ya mu xamle ko ci fotoom ba mu bira la ma àddu si mbirum suñu international sénégalais bi di Sadio Mané démb ci dibeer bi yemoo woon ak ñaar fukki fan ci weeru juin la ñu doon inauguré centre de santé bu Bambali eh, di village bu international sénégalais bii di Sadio Mané sokkee ko eh, bërëb bu fajukaay bu bees boobe nag gouverneur u Sédhiou Pape Demba Diallo moo ko inauguré hôpital boobee attaquant Liverpool bi moo ngi ci def lu tollook ñetti téeméer ak juróom fukki millions ci suñuy koppar eh, mu daal di ñëw rek yokku mu war a polariser lu toll ak fanweer ak ñeenti village bërëb bu fajukaay ba nag am na benn maternité benn infirmerie benn bloc opératoire benn morgue ak yeneeni salle ya ñu jagleel prise en charge différentes pathologies yi defkatu lu baax bi ak ay partenaire am nag dañoo fas yéene réaliser tamit yeneeni infrastructure bokk ci benn bureau de poste bu directeur général poste ba Abdoulaye Baldé mu teewee woon cérémonie ba xamle tabaxub ab station d'essence bokk na tamit ci projet ya ah ngir eh, yombalal askan ba déplacement yi hôpital bi ñoo ngi ko am ndax yéen waaye itam ngir yéen askanu Sédhiou yooyu le kaddu la fa Sadio Mané xamle international sénégalais bi eh, xamle na ni tamit yeneen réalisation dinañu si topp ngir a gunge eh, Bambali ba mu sukkaleku ci wàllum koom-koom waaye itam ci wàllum social. Queen Biz moom it daal topp Sadio ca Bambali gannaaw ba mu teewee woon sa inauguration hôpital ba niki démb ci dibeer bi moom ndax kiwin euh, daal dina fay euh, jot a sax wéy yu neex lool di tagg it international sénégalais bii di Sadio Mané mu taxawoon ci wetam laata muy dem toogiwaat euh, ca nit ña vidéo ba nag la ñu biral ci Facebook kiwin daal di si bind waawaaw waaw wii Sadio Ah, xew-xew ba am ca bambal yi di euh, inauguration bërëbu fajukaay ba fa seen doom bii di Sadio Mané amal ah, daal dinay am nag image ba nga xamante ne ni moom moo si marqué ñu bëri lool gannaaw cérémonie ba eh, di rek euh, image boobee ngeen di gis euh, si écran bi Sadio Mané di si lekk mango ah, ba ñu noppee démb ca inauguration ba ñu bëri dañoo topp Sadio Mané bokk ca ña fa teewaloon état presse bi ak ña dëkk ca bambaal yi eh, ba ñu yeggee nag ca kër ga Sadio dafa wàcc otoom daal di jubali ca garab daara bu mango ba nekk ca diggu ëtt ga si noonu ñëpp rek di laajandi lan la bëgg a def waaye nag Sadio la lu dul fër ab benn mango bu ne woon ci suuf daal di koy raxas tàmbalee lekk comme ni ngeen koy gisee noonu ci photo ba ñu ko jël nga xamante ne attire na tamit attention gu ñu bëri lool gannaaw ba ñu koy partagé wante ci réseaux sociaux yi. xibaar yi làmb laa koy daal di buure ak rififi ca arène nationale euh, bu xeex bu metti nag daal dina fay amati ci diggante supporters yi ci noonu ne ñu daal di fay yàkkate ay chaises ñu doon jël di koy xaañante seen biir di loo xam ne ñu bëri ña fa ne woon dañu ko daal di ñaawlu li ni mel nag du lu ñuy doog a nemmeeku gulle te ca arène nationale takk der yi ñoo mujjee ñëw di leen di maîtriser am na sax ka ca jëlee ay gaañu gaañu ba ñu ko jàppoo di yóbbu kenn ka fa nekkoon mer ba fees dell daa jubali ca micro taskatu xabaar la nekkoon ca xolam ne comité d'organisation CNG ci boppam ñoo deful daal seen liggéey promoteurs yi defuñu dara ba tax na ña nekk ca CNG yore wàllum organisation bi su nekkee ne rek mënuñ seen liggéey nañu tekki seen ndombal tànk jël ña nga xamante ne ni euh, ñu dynamique la ñu am courage daal di leen fay teg ñu dugg ci stade bi di surveiller boy yi waaye comité d'organisation boo xam ne ku nekk ngi sol sa xaftaan wu rafet ñëw ne da ngay organiser xel mënu ko naxante bi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 Orange Money tap tap 5